ginnaaw bu ma leen nuyoo sant yàlla bu baax julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax na rek euh, li may njëkk a def mooy sant gërëm sargal bu baax euh, population thiessoise yi puisque li ñu ma wanaat bi yoon même bu dee jotaguma chiffre officiel yi mooy seen cofeel seen mbëggeel comme ni ñu koy waxe daal ñoom fii lañu ma fat fii la ñu ma def ci xol bi donc loolu euh, responsabilité bu rëy la pour man li may ñaan yàlla mooy dund ba fay leen ko incha allah puisque franchement xamuma sax nu ma leen koy fayee puisque c'est lu nekk nguur gi jéem na ko lu nekk def nañu ko lu nekk indi nañ ko fii mais les populations euh, des ba léegi ak seen ngor ànd ak ñun feeñalaat ko bi yoon euh, sant leen gërëm leen rek pour l'instant amaguma euh, résultat officiel yi moo tax mënuma ci sori incha allah bu ñu ko amee rek dinaa jàkkaarloo ak yéen euh, dans un point de presse ou une conférence de presse pour wax leen suñu jàngat ci xew-xew yi. waaw oh, ni ma ko jàngatee mooy li ma leen wax ci bëccëg bi rekk li ma jàpp mooy peuple sénégalais bi dañoo jéppi njiitu réew mi dañoo seexlu sax wuy ji ko ci wooteem ndax li mu leen def dafa ñaaw loolu laa jàppee. Euh, donc kuy kuy jàngat bu ñu ca eggee da ngay jël taux d'abstention bi boole koog non bi xam exactement li réew mi tontu njiitu réew mi mais comme amaguñu résultat officiel yi excès guñu ci ci loolu mais noonu laa ko jàngate métit lu bu nit ñi métit ak euh, mbetteel bu ñu am ci doxalinu njiitu réew mi moo sabab ñenn ñi ne ñoom du dem sax faf wuy ji wooteem am ñeneen ñoo xam ni nag ñoom dañu ne dañuy dem voté non pour wan ko seen naqar pour wan ko ñàkk ànd gi ñu ñàkk ànd ci doxalin